mbokk déglukat yi dal leen ak jàmm statut bi soxal médecin en spécialisation yi doon na lu yitteel lool COMES di collectif des médecins en spécialisation ba tax ñu yaakaar ne war nañu tëgg ay waxtaan yu yaatoo yaatu ngir càmbar lu ni mel ndax loolee rek moo mën a indi saafara ci jafe-jafe yi nga xam ne ñoom docteur en spécialisation yi ñu ngi koy jànkonteel docteur Mbaye Sène mooy président COMES. comme bu ñu demee hôpital dañuy considérer comme de simples étudiants alors que ñu ñëpp bac la ñu am bac plus ñu ñu jàppee ay xale suñ demee faculté ñu ne ay étudiant ngeen wala ay stagiaire ngeen ñu ne leen faw ñu def kayit bu tënk la ñan ñun ñooy ñan loolu mooy statut des médecins ñun nag laaju ñu statut bi pare dañoo ne nañ teg tànk bi njëkk pour ñu def statut mooy ñu convoqué ñëpp ñi mu concerné muy les ministères concernés santé enseignement supérieur finance les syndicats ak ñëpp ñu waxtaan pour mettre en place le statut parce que statut bi moo mën a régler yenn jafe-jafe yi notamment la question de du congé de maternité est-ce que yéen xam ngeen ne docteur bu feebar nekk spécialisation da ngay redoubler wala chaque jour di nga xëy hôpital même soo wasinee soo xëyee di nga dellu hôpital wala nga ñu redoubler la est que yoonu jàpp ngeen ne loolu yëfu nit la dafa doy du yoon te dootuñ ko nangu duñ question boobu nag jàpp nañ ne ñu ci bëri société moo ko war a def préoccupation boppam surtout l'association des femmes juristes du Sénégal, l'association également des féministes ndax question jigéen la te jigéen dafa am place ci système de santé te lii ñuy def buñ xatal la. bu ñu sukkandikoo ci ab gëstu boo xam ne dañ ko def ci feebaru hypertension ci ni ñu koy détecté nañu koy fajee ñu fësal ko démb ci ab revue bu ñu duppee The Lancet li mu ñu toll ci fanweeri at ba juróom-ñaar ak juróom tey dund ak feebaru hypertension jóge na ci six cent cinquante millions jàll ci benn milliard ak ñaar fukki millions ak juróom-ñett te lu ni ci fanweeri at yi ñu génn leneen lañ ca jëlee nag moo di ne ca ñooñu ñëpp xaaj ba.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 Bonjour à tous et bienvenue. Le statut des médecins en spécialisation, une préoccupation du commerce. Le collectif des médecins en spécialisation, il doit être au cœur de large concertation afin d'apporter des solutions aux nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés les docteurs en spécialisation. Le docteur Maïsen et le président du commerce. Nous sommes raisonnables. On s'est dit qu'on ne peut pas mettre un statut dans un délai aussi court. Nous avons dit au ministère, pour mettre en place un statut du médecin en spécialisation. C'est un long processus et les parties prenantes sont nombreuses. Il s'agit des ministères de la Santé, de l'enseignement supérieur, des finances, des syndicats, de l'ordre des médecins, des facultés de médecine. Mais mettez en place les bases. Convoquez une réunion qui prend en compte toutes les parties prenantes et ceci sera le début pour mettre en place le statut du médecin. Parce que sans ce statut, on ne peut pas aujourd'hui résoudre certains problèmes, notamment la question du congé de maternité, qui est une absurdité. Comment pouvez-vous imposer un médecin, une femme médecin qui est enceinte, de venir continuer ses activités de pratique hospitalière tous les jours pendant 9 mois et même le lendemain de l'accouchement, il doit venir à l'hôpital. Nous disons non. C'est inhumain. C'est inhumain. Ah oui. Et nous interpellons là-dessus le ministère, du, le ministère du Travail et de la fonction publique. Nous interpellons les, associations féminines. Nous interpellons l'association des juristes du Sénégal sur la parce que c'est une question qui n'est pas humaine. Selon la première analyse mondiale complète de l'évolution de la prévalence de la détection, du traitement et de l'équilibre de l'hypertension menée par l'Imperial College London et l'Organisation mondiale de la santé publiée hier dans la revue The Lancet, le nombre d'adultes âgés de à ans hypertendus est passé de millions à 1,28 au cours des 30 dernières années. Près de la moitié de ces bien que l'hypertension soit facile à diagnostiquer et relativement simple à traiter à l'aide de médicaments peu coûteux, l'étude a mis en lumière des lacunes importantes dans le diagnostic et le traitement. Environ millions de personnes hypertendues, soit 41% des femmes et 51% des hommes, ignoraient leur état car elles n'avaient jamais bénéficié d'un diagnostic. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.